wala jàng bopp fi nga génne tey. waa gëmmentu. gëmmentu yow des sa toj li di gëmmentu. gis nga seetu gis nga sa bopp. maa sonn gi. moo tey rek gën a jongo ma. maa sonn ci gerte ah monsieur Diakhoum fi jaar. ah gis nga jamono jara lu baax. bett ma nag jaayee ni ñoo doo ma nettali tuuti gis ni nga nu may def def sa coupe bu ne Jarek def ci Jarek. ah monsieur Jarek xam nga kañ waaw kañ ma koy présenté. dinaa la ko présenté incha allah. bu soobee yàlla soobee yàlla. bilaay da maa gëmëntu. daa gëmëntu. waaw mais bu tibbeewee bu tib xoola lii moo may dal de bu ma toogee fii ne nekkoo fi bilaay dafay wér waa Ndeye. nga wax téléphone bu fajar. na moo am de. ñu kaa na mu. waa Ndeye. billaay dama naan ay waxu am di man mun ma boole ñaale gay naa ko diw. billaay dama ko am bi nu mu wéetee nan am di. yow amati ay jom jom ci am di. amati nga jom. yaa ko jom rek waaye dama kaa nam. <laughs> Ah, na kan mooy xumal gis nga kii ñaay kenn duggul lépp sàng ñu ngi fi toog. yow am di lim la woon bi yàlla sàkk ak li la am di di def. baal yooyu nag ma am di. wante dama kaa nam baal ma ay waxu am di. ma yor ambiance ma wax ah, ma boole waaye tàgge damaa sonn naa la gay naa ko diw dee na moom amul fenn. bàyyi la ma mu nekk. soo waaye dama kaa kon baax ni woo man am di laa a. léegi nag loolu na doo bàyyi mu seet tamit. sama yeneen bi kenn duggul ah. naa ko jot sax ko jot la def nag. am di Basiro yaay sama waay wan ma sa waay jox la sama waay waay am di nag coo ma dama laa nam moo tax ma lay woo yow ah, waa baal ma baal ma <laughs> maa ngi maa ngi lay yëpp la nam wuyul nday <laughs> eh Amdi eh man la Ndeye Gueye Amdi eh wuy ma yow ñëwal ñëwal dama la soxla ñëwal eh may ma sama jàmm ñëwal rek yow xam nga ma baax duma sa gan ñëwal. forcé ko yaa ngi ñëw waaw kon baax na. sa téléphone bi yow yow moom yaa gën a ñàkk fay ma kaa namm nag bon dama woo ko nee na mu may araf te dégg nga diw <laughs> yaa gën a mat naa ma loo may woowee ma ne ko waa baal ma mat rek nga ñetti dërëm ma ko namm am de andi client yi de gis nga boutique bi kenn dugg yaa ngi nii gémmen doo ko bàyyi ma ñëw rek xumbal fii boobu maa am ah day waa am di eh. waa am di lii lan la tamit sama doom day mu am di loo sañ seen nii non defal nii dañuy nekk man wax ji laa doon mën ñëw waa am di tey ame allah américain nga may indi de wala ñëpp la na ma de muy sangu noonu eh, man day fi mu ne nii man damaa waxul mm. dafa am yoo xamante nii eh. dafa rafetul man seen càmmiñ laa amul lu dox di ngeen may jiñ sàcc di may xët di may génnee di may def ay affaire nga may kiit loo yooyu dafa rafetlu da mënuma ko fàtte parce que. yaa ko def moo tax waaw baal ma waaw man man personnellement baal ma. ndey ah. ndey boo bu ma waxul bul wax. yow looy wax. man bu ma waxul bul wax. ndey dóorin ko dóoramee. waaw bu ma waxul rek bul wax. waaw parce que man sàcc laa d'accord waaye am na ñoo xam ne dañuy sàcc dëkk. sàcc dëkk ah waaw ah, ah am na fi de. am na fii ci bitig bi ci jàppari bi fii. Hmm. yow keroog bi ñu demee restaurant keroog bi ñu demee restaurant. ma camoufler rapidement ne la nañ dem. am di. eh, eh day ngi sos. rek ma wax réglé rek ma wax. ma réglé te boo mu dóoraatee naa la dóor. am di mm-hmm. bi ñu restaurant. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ma ñëw ne profité nañ nga ma la ma ne nañ nañ dem nañ dem ba ñu génnee. waaw xam nga lu xewoon. Ndeye ak sa jëkkër ñoo fa nekkoon. kii toog oto baag lépp si doxaan ba ba tey ba sànq si bitig baa ngi toj. am yow ñeme naa parfum de waaye moom moo sàcc jëkkër. am yow ñeme sa jëkkër a ngi toj. am yow kañ ngay kañ ngay am gàcce. am ni nga wax ak man amoo loo wax ak am. da ngaa gëm kii gëm naa ko. Ah. gëm naa ko damay soog am confirmation bi rek li ma doon dute yëpp dëgg la ngeen di woote ay mindaan ak samay mindaanu yaay ak nangam def nii tey. mosta am. ah Ndeye. yow ak ma jaare yow yëpp lii de mooy dëgg lay la jaare la. waaye nag tey lay jeex ma ak jugal. jug jëm fan. génn boutique bi. boutique bi. da ngay génn waaw da ngay génn kay. boutique bi ci biti. boutique bi ci am laa fi am. Eh, eh. maa ñu yow ñoo yem boobu jugal. pire égalité. tey jugal nga génn ku ci toogal toogal ak yow. am ni toogal toogal. noppi toogal bi toogal toogal toogal. am ni bàyyi ma toogal. bul ma gis may nooy nag nga jàpp ni xoolal dam benn nooy neex la am ni. génnal ci biti. am ni noppi man naa fa de. sax katu jugal ma. waaye tey da jugal ma génn ma laal. Eh. Eh. sa loxo bu ko laal bàyyi ma waaw bàyyi ma ma eh. jóg bàyyi ma. Eh. soo ma bàyyee ma jóg. waaw daa nga ne dama ne nga gaaw génn si biti. yow moom am na amoo loo duul kat génn. waaw ah. ah, yow duul kat original mooy yow sa kii bu yaa. na ne appayage. waaye xoolal doy na. barki borom taal. sàcc katu jëkkër nga. place bi bu ma la fi jëlewul doo ma fi jële baaba boobu su ma la ko waxee rek day ba boobu lu may maa ngi ñëw keroog bu ma génne maa bu max ci biti ci biti lii la ñuy def di nangu jëkkëru jàmbur yi yow day xam nga ni xamoon na ni sama àq dina la dal par projet gis nga nag yow comme demee ne nii Ndeye Gueye moom du nit moog jàppaay ñoo nga ya auberge ya bitig bi rek lu ñu la man soo fi jëlee lu ndaw ñu may sosal euh, sos bu rëy baa ngi nii waaye nag comme demee na nii déglu déglu moom comme demee na nii jàppare ngi nii di doxaat dégg da nga ñëw maa ngi yow di doxaanante naqaral leen est que comprendre ma la di nga ñëw maa ngi ñu nëbbante nëbbante lu doom ma jël la di lee tël tëlaale di lee filfilaale noo ma déggee maa fi ne fii loolu rek a fi xew jàpp ndéggéey waay wàccu yaa ngi xam li ngay xam boobu ba tey nee nga fekkee nga oto beeg lépp. waaw te yaa ngi fi di ma reetaan. waaw yéen ñëpp a ba pare ngay nekk fii di ngaan di wax. am di nga dem waaye instant bii. kan ngay jug dem. am di jugal nga dem ngir yàlla. Ah, yow sa woote gu ma woote pour mu ñëw. bëggatuma la gis dama. waxal lu leer bis boo ma dégg bis ma la wanee ginnaaw jaar nii dootuma gisaat à vie te am ma waroon a tijji. am na ngir yàlla taluma li ngay wax jugal nga dem. ah. munoo toog ñu négocier lii yow laay waxal munoo toog ñu négocier lii moo wax la li nga xamante ne moo fi nekk gëmoo li ma la man je t'aime dama la bëgg. mu ne baax na. man kenn ma daax man laay jëm. yaa xam ne fi dëkk <laughs> yaa la may. <laughs> sa jëkkër ak béykat yi ñu koy tëntu tëlaale du fel felaale béykat yi ngay nàmp tus ko. àdduna daal la mooy dëmm rey la ba pare jaare la doo xam kan ngay wóolu kan ndey nga xam ni ndey dama ko def comme sama sœur monsieur Dia ba mu ñëwee sax valise bi mu àndi lépp dama ko partage ak moom lépp ndey ma def ko comme sœur bu ma bokkal ndey ak baay ndey tey di ma def lii. day moom a bett dëgg hmm. daal man daal àdduna bi daal jaaxal na moom waaye kenn yebu ma nag monsieur Dia rek moo ma yeb waaye tey jii dina dégg lu musul dégg ci àddinaam ba ma wàcc rek tey la classe, l'élégance et le raffinement, y a pas mieux que Diapari. Une boutique de Paris dans la ville de Dakar. Est-ce possible? Bien sûr, c'est possible avec Diapari. Ne vous le faites pas raconter, mes chers. Venez visiter notre structure, qui est composée d'une grande parfumerie. Eh oui, des parfums de classe pour hommes et pour femmes. Tout pour un bien-être Nous avons des bazins Gesner qui peuvent être confectionnés sur place, évidemment par nos propres tailleurs, dans notre atelier de couture, des prêts à porter, et même pour les enfants, nous avons une bombinerie pour servir vos petits bouts de chou. Alors, qu'attendez-vous Je vous donne rendez-vous au 5 avenue Cher Ahmadou Bamba, à côté de la clinique Rabi. Le numéro de téléphone 00221 33 824

jiiri ngeen jëf wolof njaay day faral di wax lu ne fàng kenn di ko jeex njàkk rek jaax rek jeex ginnaaw ba garab yu gën si garab yi garab gu baax lool ci wàllum góor ñëwee si même réew ma ne la góor kàttan lañ koy wax gars yi xam nañ ko miin nañ ko xam nañ garab gi lan mooy efficacité bépp góor guddalee baa góor goo xam ne dafa gaaw a àgg baa góor gi nga xam ne mës na yëg bànneex solution baa ngi góor kàttan lay doon wàcc ma daan naa la wóorut ku daan da ngay féete kaw garab gi baax bi bu baax kenn mënu la ko wax résultat bi jooni jooni la Sénégal xam nañ garab gi bëgg nañ ko lool lool ma ne garab gi nekk si bitéel bi kenn du ko jaawale benn la si mim réew weddi gis bokk si te ku mos di wooteel gaaw si numéro bi 77 734 26 67 77 734 26 67 neexul ba neexul waaye góor kàttan daal tax na góor yëpp seen kàttan yo